dañuy faral di ànd ak li nga xam ne nii mooy seen xàmmalikukaay di euh, kankurang ak li nga xam ne nii moom mooy faara waaye it joolaa yi xàmmee nañ leen ak li nga xam ne nii moom mooy kumpoo zimba boo ko déggee mu nekk euh, xàmmalikukaay boo xam ne nii olof yi leen ko daal di xamee lii nag nekk na loo xam ne nii. Euh, bari na ci biir réewu gambee yi te it euh, nit ñi nga xam ñoo nekk si xeet yi ni fulal neen ko te it euh, faratal neen ko at bu nekk si biir gambia bi dañuy faral di gis li nga xam ne ni moom la ñuy ooye hontin hontin nag nekk loo xam ni xeet bii di aku ñoom leen ko ràññareel muy seeni mandarga waaye it hontin teachers yi dañ daan joggé Sierra Leone di ñëw di ticc fi di joggé Sierra Leone di dem Nigeria di fa ticc comme Afrika dañ doon séddoo wante ay ticcas because taw ko wona bari ticcas so Sierra Leone yan si nga xamné ne demoon nañ Nigeria ticci fa ka fa ticca dañ fa gis hontin so hontin Nigerian si di def mu doré ab yokuta so ab yokuta la doré in Nigeria Yoruba yi ñoko isi waaw ben rap la won bo xamné ne daf daan rey sen domi di rey sen gée yi so rab boobu gars yi jàppa ko waaw ba tey olukootu boobu olukootu bi muy position bi ma am ak asipa ak et abuja ñoo àndoon si àll bi jàppa rab bi taka ko si ndiga isi ko waaye dafa am benn xob buñ dee takal xont bi si ndiga ak si bu ñu taka si ndigaam bi tànkaam bi wikk ñu taka beneen bi si boppam bi yaramam bi wikk ñu isi ko si dëkk bi bi ko gaa yi si dëkk bi waa dëkk bi di ko sali biréet loolu mu ngi xewoon 1820 ab yokkuta so waa dëkk bi di ko celebrate loolu moo isi hontin every year ñu celebrate ko ba hontin ñëwee foofu so Sierra Leonean si nga xam ne jógee woon nañ Sierra Leone dem dem ticc dem ticci eh, biir Nigeria ñu jëlee ko foofu because like nañ game bi isi ko Sierra Leone waaye mu ngi ñëw Sierra Leone si 1900 area boobu la jógee fri eh, Nigeria mu ñëw Sierra ndem si yàlla Johnson Emmanuel Williams ñu gënoon koo xamee si Erobami Williams waaye euh, tur bi nga xam ne ni dëkk bi yëpp moom leen ko ràññale mooy Master Williams mii nag doonoon na ab nit bi nga xam ne ni mu ngi woon foofu noonu ne sa Sierra Leone nekk fa bokk si ñi nga xam ne nii. boog nekk na woon jàngalekat bu mag foofu sa Sierra Leone jamono jooju noonu nguuri Gambia gi ak nju nguuri Sierra Leone bi ñu ngi lëkkaloo woon doon benn waaye it dem na ba ab jamono bi nga xam ne ni nguuri Gambia soxla leen ay jàngalekat fii ci biir réewu Gambia ci leen daal lëkkaloo ak ñi nga xam ne ni ñoom ñooy nguuri Sierra Euh, daal di latte ay nit euh, foofu noonu ñi nga xam ne ni ay jàngale den tey xarañ leen si la ñuy def su ko defee ñu mun a jàppale jànguwaay gi fii si biir réewu Gambia bokk si ñëwoon di ki nga xam ne ni moom mooy Master Williams moom nag bu ko nguur gi lattee ne ndax euh, dina ñëw fii si biir Gambia bi. ah ba ñu maa ñëw de waaye man dama fi am benn société boo xam ne. hunting society la hunting society boo déggee di word hunting nag mooy ñi nga xam ne ay robakat lañ dañ daan dem ci àll bi ci jamono di roba ay naat ay ay jaxaat ay golo ak yu bare bare suñ ñëwee ñu def seen mbiri aada ak cosaan loolu moo tax ñu tuddee leen hunters they were hunters lañ ñu tudd society bi ñu tuddee ko di hunting society yalla def nak bañ ñëwé ba ñu wax ñu wax nguur gi nguur gi nak ñun bañuñ pour nga ñu ba gambia ñu wax sa sa xam-xam mu ne len du xam-xam rek de xam-xam gi dafa anda ak ñi nga xam ne ñoo dee ànd ak man di def xam-xam bi hunting bi nak mom suñ bokki aku yi lañ ko xamé aku itam ak aku marabu itam amé xamé nañ len hunting lol motax na so xoolee mom du Banjul la waaw mom Banjul ko mom waaw am nga legui nak amin akuy yu nañ Banjul di dëkk Serekunda lamine ak yenen place so ci la fi joge mom itam and ak ñom ah, you know am Ibo Town ak yoy nonu ba Bakaw sax waaye cosaanam Banjul la Manukumba papaam Master William mom ak ñoom Padre Ribo Kool waxaadinteen fi ak kilifa yi nga xamne ñom la bokalon, ñoo ubi hontin fi indi Ali lii nga xam ne nii moom la indi doon màndarga aku nekk na loo xam ne nii ba jamono duñ toll nii ay xale yu ndaw dañuy génn sax di takk xonteen su at bu bees bi di dugg see war a si feet bi nga xam ne ni moom mooy Christmas di dugg si. ñëw teewaay euh, ki nga xam ne ni moom mooy Master Williams fii si biir Gambia bi moom nag moo jur xontin fii si biir dëkk bi waaye it Hontine bu njëkk ba ak xontin léegi nekk na loo xam ne nii am neen ute bu mag sax. ñoom Hontine Hontine nekkuloon mbir yi ñëw rek bokka mhm. da nga nga am xam-xam foog moo am looy àndal ndaxte ñoom buñ daan génn. dañ ne Hunting Society Master Williams sa ngi génn ah, dafaa jékki-jékki rek tuuf ci ci loxoom bi rek mu mel ni ganaar la téye ganaar bu weex su ko defee mu wërngal ko ci boppi xay ah, lifin bi xonta bi Hunting bi lifin bi deewul bi jam ko ci ci ci ci béjjin bi moom la ñoo génnee suñ génnee nag ah, la ñoo war a njëkk a taseel mooy góor la caa ñaareel mooy jigéen la caa ñetteel mooy xaleel yii su fekkee ne amuñ ko rek duñ nangu génn jaral na ni ñu delluwaat ci gannaaw. balaa ngay mun a def amin um, amin hunting dana war a yàbb boppa waaw nu mu commencé ñu nekkul ne amin amin nit dafaa jog rek ñu xam nga takka ko mbaa ñu takkala ko déedéet da nga yàbb bopp loolu moo tax ñu daan def hunting sax dañ daan mun a faj feebar yi na feebar yu xale yi nii yi na biir bi daw yi na amin feebar yi yoos ñëpp su su su daraan xale da dem si hunting yi comme comme ñu nga xam ne ñu ngi si koñ bi ñu bokk si hunting bi ñoom ñoo laa dimbali defal la téere. ñoom seen mbir mi dafa àndoon ak cosaan dafa àndoon ak aada dafa àndoon ak yoo xam ne yuy déggu de parce que moom mbiram yëpp moom fajkat la woon itam waaw mun naa faj rab raba ko rey sax ci kaw faj waaw waaw ci kaw faj rab moo ko rey. so soo ko du du fo wow, waaw lo am solo la waaw amin amin ada afrika tigi tigi tigi tigi la. ak yu demé noonu ku ko xamoon càmmoñ la won nak waye bu chamoy ñom bi ni be be raid ñaari loxom yi ni xaliss bu bari mu na gene ci loxom ni hmm. mu bàyyi su leen bayé nak nga gis mu na mu na delu wat do do ko do len gisati motax mané xonting xontas dañ bo doonoon ñu am xam-xam ñu am boppaale am xam-xam ñeme ko waaye léegi xale yu ndaw yi saa ngi boo def xonte nag yu demee noonu la fa woon jógu fa ba tey xontin nekk na màndarga goo xam ne ni xóot na xóot boo xam ne nii ay mbaaram duñuy nangu sax ay jigéen dugg fa waxatuma laag ay nit ñi nga xamante ne nii yaawuñ bopp bu njëkkoon xontin bi nga xam ne ni moom la Master Williams daan doxal ñoom it dañ daan dem si li nga xam ne ni moom mooy bàmmeel bi guddi ba nga xamante ne ni si suba si leen war a génne xontin bi waaye it nekkoon na loo xam ne nii ragallu na ragalu ba nga xam ne ni ku gisaan xontin bu njëkk ba dangay daw doo taxaw mu taxawal nag lifin bi mbootaay mi mu tuddee ko Blue Diamonds Society gannaaw gi ñu ne dañ bugg a mu fés mu ne kon nag naa ko ooyee Blue Diamond Hunting Society Hunting Society bi nag yàlla def muy indiwaale gaayam yi ñii di ay woykat ñii di ay feccakat ñii di ay tëggakat waaye ñoom ñëpp seen mbir yëpp ñu ko wéeroon ci mbiri xontin waaye nag amoon na benn bés bu ma mos a suma papa dafa waroon a génn xontinam bi dafa waroon a génn agugu yi di di di di ak moom agugu yaa ngi woon xaarintin euh, moom ngi tomsin <laughs> mu mel ni benn kër benn bunti kër moo dox benn euh, mbedda moo dox seen kër waaye pour woon na rek xam-xam euh, ba gaay a génnee juróom-ñaari agugu lañ woon bañ génnee suma papa dafa taxaw ci jonction ni Thompson Street gii nii ak Spalding am yu mu def am manière yu mu def ak yooyu waaye dafa mel ni xonte ni ci seen biir euh, mbubay dafa mel ni dafa am yu leen doon matt ak ñoom seen ak yooyu soo ku ci nekka da ngaa ñëw sukka ci suma ci suma euh, ci suma tànki papa mu raay sa boppa bi nga dem waaye boo demee da ngaa simiku noonu la leen def ñoom ñaar ñoom juróom-ñaar yëpp bañ jeex. bu njëkk ba nag ni ma la ko waxee góor a jigéen a ci bokkoon waaye jigéen yi dañ am fu ñu em. Mm-hmm. loolu nag defe naa ci aada ak cosaan sax ci. ci religion loolu ngi ci ci man ni ma gisee di am na foo xam ne fale jigéen la ca biir ñoom góor jigéen ñi amuñ xam-xam bi pour war ko mun a gàddu waaye lu tax nag jigéen du dugg ci biir xonteen bi man bokkuma te man mënuma laa wax naka lan la waaye xam naa ne cosaawoo cosaanoo nañ jigéen du dugg ci seen biir mbaar loolu daal moom xam naa ko jigéen ñi nag xorom lañ ci woon ndaxte ñoom it dañ daan tàccu ci biir kër gi ñoom ñoo amee woon tàccu yi waaw di tàccu waaye nag pour dugg ci biir mbaari jigéen even góor ñi sa am na ñoo xam ne bu ñu leen ne woon pour dugg rek ci mbaari góor te mbaari xonte te te bokkuñ ci suñ duggee rek dinañ dinañ gis lu ñu warul a gis te mun na leen indi boppa bu tourmanqué. loolu mhm. yëpp dafaa am waaw lii moom moom moom moom xewoon na moom. xontin bu njëkk ba daa dineen woon di am ay jigéen waaye jigéen yi den am fu ñu em. te it xontin bu mu xontin buñ toll ci jamono ji tamit jigéen yi dañ leen émale parce que mbaare xontin nekk na loo xam ne ni euh, jigéen ñi waruñ fay dugga parce que seeni lëy ñuy def seeni aadak cosaan bi ñuy def rëy na rëy boo xam ne nii bopp jigéen munu koo ànd. léeg-léeg yi moo fa nekk di dem. waaw so lan moo tax ñu danaa traîner bu leen dugal parce que jamono ji toll ñu nga wax ne lu góor yi def jigéen mën na ko def lan moo tax nanguñ leen a bàyyi yéen tamit naa solal waaye bii <laughs> dafa lu góor def jigéen mën na ko def waaye du hontin wax dëgg neex yàlla du benn sax hontin dafa am sécurité bu fa nekk comme suma olu ko ñu la ko waxee soo fi duggee da nga yan si bi fekk beneen mu ngi si biir xaajuloo si biir fii noonu la mel waaw wante nag léegi bu njëkk ba ñaari yoon rek la daan génn ñaari yoon rek ci at bi bés bi nga xamee ne ci la ñoo euh, foseen Abuja ñu ko oye ñu léegi mm-hmm. su lu lay xew daaw ma ci bokk waaye daan naa ko fekkee dañ daan dem ñoom ñëpp fanaani ca àll ba suñ demee ca àll ba foofa lañ daan nekka euh, ci ci feteel seen seen rap yeeg seen yooyu yiñ feteel yi dañ leen di indiwaat du yooyu la yooyu la def añ wala ñu def ko reer wala yu demee noonu soo ñoom yiñ daan rey rey feteel yooyu lañ daan jël moom lañ daan indi di ko togga noonu la mbir mi demee waaye te boobu bu njëkk ba moom fokk rek di nga dem am loo rey loolu benn la ñaareel ba xanaa su fekkee ne am na ko dee ci ñoom duñ génn de waaye dinañ foof seen seen mbirib moomu loolu suñ ko foofee ba ca ñeneen fukki guddi ya mooy ñaareelu yoon bi ca ñoo génn nag pour fayal ka dee te ñaareel bu njëkk ba bañ ko daan suñ ko daan def dañ ci biir kër lañ ko daan def duñ ko daan def ci mbedd loolu laa gisoon mu am nag feet boo xam ne moom lañ taamu woon muy won Easter Monday ci feet yi feet boobu rek laak xontin daan génn ci jamono jooju xontin teeful bi ci la daan génn parce que moom ci lañ daan ci lañ daan gërëm gërëmbaate ñoom i neen ak noonu soo ci la xontin daan génn di nga gis ne xontin daan génn bés bi ñu nga xam ne ci la ñoo def seen abuja play bi ak bés bi nga xam ne moom ci boppam moom moom la ñoo feetal at at mu ees bi gannaaw loolu su seen ah, amee ku dee ci seen biir ñu bàyyi ba ñeen fukki guddeer dinañ ko fuufal nag dañ def seen su aada cosaan yi waaye waaye deebul bi du génn ba bu am ñeen fukki guddi ca la deebul biy génn deebul bay génn nag yu weex la daan sol yu weex moom la daan deebul ba daan sol waaw su ko defee ñu def ci seen yëf ñu ñu doy waar la woon nag ci seen biir ndax amoon na yu yu bon yu soxor yoo xam ne mun nañ ko daan def waaye duñ ko def koo xam ne tooñu leen foog nga tooñ leen. Gonzo Hunting Society mu ngi génn four times si at bi. waaw force force bi nga génna si at bi force day mooy new year day on the force boobu di annual boobu lañ dee génn fu si at bi number one number two play back loolu ñoo ko njëkk a def ñu ngi ko start 2004 di def play back eh, play back li mu miin mooy dañ dee play ba pare fans yi xam nga am na suñ fans yoo xam ne ñu ngi doon play Hunting Combo wala ñu ngi doon xam nga néeguñ koo ñu ngi amoon gan oo am nga soo ñu defaat another day play back li defoon si ñu yëpp ñu defaat ko pour ñëw ñu mun koo witness understand so muy number di third one mooy mooy mooy mooy Abuja play april la dee nekka mooy ñi nga xam ne ñëpp nekka nañ si Hunting bi te amuñ pause kenn si ñoom rek mooy ki am pause mooy eet Abuja mooy ki nga xam ne moo nekk si exécutif bi so ñeneen ñi si des yëpp ñu ngi si ron ok ñu ñu ngi si booka te ñoom ñooy liggéey liggéey bi ñoom la ñoo yónni yónni yi ñoom nga fekkoon fii ñuy añ ñooñu noonu seen pile yi boppa pour ñu mun a am seen account pour ñu mun a toppatoo seen ay affaire ñoom loo xam ne ñun xëj na mënuñ leen ko defal ñu jël seen account bi def ko on asana so loolu mooy play di di di fourth one mooy Christmas day at the ending ñu def suñ Christmas play boobu moo dee ne boobu a play ñun Gonsot si 1994. because ñun very rare pour ñu ñu ñu play um, bi. Euh, New Year's mooy suñ annual play bi after New Year's ñu ngi amee beneen play bu ñu dee ooyee Egunde play boobu mooy play society bi waaye mooy comme mooy birthday society bi after loolu dañ dee am tam Abuja play bu mooy play eh, young people yi nekk si society apart from offices yi ñoom dañ dee am seen play play yooyu rek lañ am ci at bi on ñu oo si sëy dara ñu am dëj ñu am ñu war a play forty days ak waaye apart from that three times si at bi lañ jël play. génn bi pa ya nag du dee am e, prescribe number boo xam ne si la ñoo génn xam nañ ne am nañ specific place yoo xam ne dinañ ko dee play every year e, muy annual play bi ñu dee play New Year's Day ak eh, play bi ñoo play bi ñoo ooyee Ogunde ak play Aboja play yi daal mooy spécifique play nga xam ne over the years ñu ngi ko play every year ci kaw loolu nag dinañ dee am yeneen play yoo xam ne daf dee mën a ñëw in between like ñu am invitation to go and play ak yooyu noonu yooyu yëpp daf dee mën a xew waaye spécifically ñun dañ dee play ñetti yoon si at bi li si tegu yëpp dañ ñoo invite ñu dem play on it am sa programme oo ñu ñu ñëw playal la léegi nag li ñu gis moo di xontini ni bongo debul yi leen di lifi ni fecc ak ñoom seen ak di téye ñoom ñu lu amatoon hmm. ñoom ñoom ñoom duñ daan def loolu ñoom jigéen ñi dañoo def seen acho bi góor ñi def seen acho bi jigéen ñi dañ daan def blue skirt ak white blouse hmm. góor ñi def tubéy bu tubéy bu weex onastan la ak ak simis bu weex ak code bu blue hmm. noonu lañ daan def so noonu la gaay daan def seen jamono waaye la ma gis léegi léegi moom yooyu la olof dee wax kakadeebul mhm. moom la akuy dee wax kakadeebul nga xam ne àndu la xampan àndu la dara mhm. bàyyi su ba lañ daan génn nag daan naan gis suma bàyyi daan naa def leen mhm. daf daan génne ñetti ñetti ñetti guru benn bu weex benn bu xonqa ak benn bu digga doomu am na nuñ ko daan defee nag pour ñu war a xam ndax génn bi dina mën a sotteem déet ci kaw loolu buñ ko defaan bee am ci seen xam-xam ñu soog a génn yi ci biir nag xam naa ko waaye duma ko wax parce que secret society la te su ma ko defee ba man maa ngi jaay seen xam-xam ak seen ak seen mun-mun waaye nag xontin bu njëkk ba ak xontinu léegi du benn wax naa la ne wax naa leen itam ne moom moo fi ñëkk koy indi xontin waaye dem na ba ci digga mu am ñoo xam ne gédé fédé nañ géew taxawal seen xontini boppa ñi homo jesa dañ tuddoon ñu ñu ngi tuddoo eh, naka la tuddaatee Midlands ak yu demee noonu yii fi di law di dem di law di dem ba tasaaroo waaye yàlla def na nag fi mu nekk nii ci jamono jii mm, ñun de ñun lañ xamoon moo tax su xontin su ñuy xontin nag laa nuyu xanaa mu nekk xont suma xontin ni doom wala mu nekk bu eku baba ode parce que yooyu am nañ ci sax tuuti tuuti naka la cafka yoo xam ne nit mun na ko génn wala omo jesa Midlands sax. moom itam gis naa ne ñu ngi góorgóorlu waaye xontin daawul daawul daaxe dara xontin du daaxee melut ni agogo te fu mu tasee ak agogo agogo bi dafaa dandatu abal ko waaw foo xontin tase mooy ñoom mm-hmm. ñoom ñooy woon cosaan yi te ñoom ci ñoom la ci ñoom bu njëkk ba sax soo bokkee xontin doo bokk agogo léegi laa gis ngay bokk xontin di bokk agogo ndax man suma bay su daan and ak man am na kër gum daan dem su demane bi nga xamne fofu nonu noonu kër kër agugu du dugg ci biir dafa taxaw wax ci palanteer ba wax ak mo waxal koku si su génn si daf ko indil ci tek ko ci digi état bi bu tok way du dugg ci biir nek bi loolu itam na xew fi ci suñu biir kër fi fi am na xamne sori wuñu sax koku itam pa bi bu be be wax suma papa suma suma papa daf ko uyu ci tam moo moo moo mu nekk ci mu sëpp ci palanteer di wax ak suy di wax ak suy boppam. xanaa la moo nekk différence between bi. agogo mu ngi doon nii rek mu ne yow eh, mun naa ko waxee rek ni rakki hunting waaye la xew ci diggante agogo ak hunting man bokkuma pour war a mun a xam lan moo nekk ci diggante bi waaye xam naa ne ñoom agogo fu ñu tasee ak hunting dañoo abal hunting bi. xontin euh, bu njëkk ba xuutoon na xuut yoo xam ne nii ba ay xërin sax dañ si daan bokk xërën yooyu nag euh, moo tax ñu bëri bëri bëggu ñoo si li nga xam ne nii moom mooy mbootaayu nii ki nga xam ne nii moom mooy doomi Master Williams moom si boppam sax bokkut si mbootaayu xontin yi parce que am na gom-gomi ne loolu yi fii xërën la waye jamono juñ tollu ni doomi julliti sax ci seeni bop ñom ñu ngi bok ci xontini mbootaayi xontini am nañ ci ay jafe-jafe ak seeni wajur waye seeni gum-gum rek euh, mo tax ñu bok ci mbootaay yi ba jamono juñ tollu ni ñu ngi si mbir yooyu nag mbiri seytaane la woon du mbiri yalla de parce que man ma ci gisoon be yalla def na man bokuma ci won waxna be tay way nangu na bokka moo di ne affaire bi moom da ngaa gën a toppal mbiri xërim daal ak yu demee noonu loolu nag moom ci biir ba léegi ci biir xontin hmm. waaye man musuma bokka nag fi fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee waaye musuma bokka te yàlla def na musuma cee forcé pour bokk ci waaye gis nga li daal yàlla def nanguma cee bokka waaye suma doom ji suma taaw bu góor hmm. mu bokk ci. well definitely it was not so easy. pour ñu accepte ma si hontin suma pa eh, suma yaay mom lu bëggon rek bëgg na ya yal na ko te jégal ko ah lepp lo xamné rek suma yaay bëgg na si Dundam, ya na ko eh, yalla defal si njabotam an njabotim bolem julit suma yaay lu bëggon rek bëgg may chatam musuta against suma yefi hontin way suma pa dur na ma be do ma maag soo suma fi di nga gis né magang fa bo xamné suma pa hontin mota mu dóor ma foofu toj kon su yi jëlee xaalis sa tànkam rek xam ne yaa ko may mu déggaat ko te su ko déggaatee moom moo ko moom ka nga xam ne moo ko koo foral su su simee ko moom mu la koo jox waaye liñ sànni ni ci suuf loolu pour loolu pour lifin ñi la pour pour pour ñi ñi ñi nga xam ne ñoo ñoo moom seen société la waaye la nga xam ne yow soo buggee mee xontin bi pour mu moomal ko boppam. da dafaa ekkati tànkaam bi mu mu mu nga teg ko ci mu dëggaat ko boobu moom ma ko moom boobu du bokk ak ki nga xam ne mooy denca denca bu société bi. ma moom moo tax ma waxoon naa la ko ca ndoolee ne la xontin bu njëkk ba loolu xontini dikka dikka la woon. te ña ko daan fo dañ dañ amoon xam-xam. dañ amoon boppa te nangu woon it doon ne ñoom lañ am na nag luñ daan lekka luñ leen daan jox. moom lañ daa wax médecine mhm. moom lañ daan wax garab yooyu dañ ko daan lekk soo ko lekkee mooy bokka nga ay ña itam de gën a agu dañ ko dee def waaye ñoom dañ koo def soo su ko loolu dafa dafaa seen dégoûté ci ci biir société bi ak tam seen naka la secret ak bi nga xam ne moom la doxal ci biir société bi loolu mooy xew léegi loolu amatul léegi bugg a bokka rek bokka la rek ak yu demee noonu te eh, ñoom ñële dañ ko def ngir am ngóom ngi ñii dañ ko def pour pour pour pour naka la ngistal bi neex na ma rek ma bokk ci rek di def waaye nekkut loo xam ne la li def daan def na la li def déedéet li xew mooy ñële ñële ñoom dañ daan doxal loo xam ne mooy dëgga ci xontin bi su noonu la fi xontin ñëwee ci ci ci yàlla def nag mu xaaj ñu dem bi ci digga itam mu xaaj ndaxte moom dafa nekkoon koo xam ne dafa su ne waaw rek waaw su ne lii rek lii te du daal gestu gannaaw Olukootu general bu Gunsot Hunting Society. Olukootu general means ki nga xam ne moom mooy toppatoo anything about hunting bi waaw amul dara lu moo defa administrate xam nga society dafa am administration at the same time dafa am hunting side bi bi nga xam ne moo nekk si biir waaw mboolem loo xam ne moo nekk si biir loolu si suma ondal la nekk waaw Gonzo's Hunting Society ni mu dooree mooy dafa am suñ papa yi benn vu buñ fi amoon vu boo xam ne ñu ngi ko daan ooyee neex affaire vu ñoom dañ daan oo ay baan dañ da ñoom Bemba Yaa Jaas yëpp oo nañ leen fii xam nga xam nga dañ daan isi Royal Band de Thiès ñoo ñëpp isi nañ leen fii so vu boobu nag bi paa yi demee ba munatuñ ñun ñu jël vu bi xam nga ñun seen doom yi ñu jël vu bi tuddee ko neex affaire style di ko doxee waaye suñ toogee si vous bi Christmas di ak ñu iya suñ fa toogee di nga gis ne nit yi dañoo ñëw hontin si si ñun benn benn at ñu seet ne waa ok léegi nañ seet ñaata lañ spend si maye yiñ fi maye muy cololookat yi lantinkat yi ak yiñ fi maye daal ñu ko calculer ko that time mu demoon ay thousands of dollars yoo xam ne may nañ ko hontin yi may ñu ne léegi ñun ndegem ñun benn bi rek ñoo maye lii vuy yi ga banjul yep suñ meye xaliss bobu mun nañ see def dara ñun ñu créer pique-nique su ko defee ñun ñep ñu dem enjoy ko ci bij bi so lolu mo isi hontin bi ñu start ko 1994 amu jës hontin uh, society mi ngi commencé si banjul fi in 1974 mm, group of christian boys yoo xam dañ toogoon ñu gis ne ñu war a form society hunting society amoon nañ eh, nekkoon na society boo xam ne nekkutoon hunting society waaye after dañ change decide pour mu nekk hunting society so <coughs> fekk ñu ngi amoon benn waaye bu jógee Freetown ñu ko doon eh, Mr Medziga mu doon liggéey at that time PWD Banjul fii so kooku moo ñëwoon moom Freetown la jógee woon so moo ñëw ñu enroll ay boys ñu initiate leen ñu form hontin bi waaye man original yi ñi form hontin bi sax man nekkuma fa woon waaye man after man maa ngi join hontin bi 76 waaye bi ñoo join original members yi ñoom ñu fi some of them fi mu nekk nii eh, bàyyi nañ hontin bi waaye am na still ñu ngi am membres yoo xam ne o benn membre boo xam ne original membre la waroon na fee nekk tey waaye nekk fi waaye anyway noonu la xonteen bi starté bi ñu starté 74 dem di dem di enroll boys yi ba after ñu ñu am société bi ñëw to level boo xam ne um, dañ decide pour am more members. Okay. So around 1978, 79 union. Okay. ñu ñu decide pour enroll some jigéen ci société bi waaye jigéen ñi nekkoon ci société bi mooy suñ jabar yi waaw suñ jabar jël ci société bi moom lañ dee yaam yi mooy jigéen ñi ngay bokk si wantin bi suñ société bi nag di nga gis ne ñun culture bi changing ko ba léegi ñun original euh, culture bi la ñoo play ba léegi waaye amoo jë sa wantin société ñun ñoo fi njëkk a play ak jigéen am ay jigéen ñu bokk si wantin bi ba after suñ doom itam ñu bokk si Eh, ñu def leen ñu leen a train daal pour ñoom tam ñu ñëw ñu grow up pour société bi ni moo grow yi xam nga xale tam ñu ñëw jël over ok so xale eh, ñu ngi leen di ooyee Abuja mooy junior hunting members yi. ah society bi day eh, guddaan ak gaatut because ñun suñ oncle yi. ñoo form society bi eh, a long time ago yàgg na boobu some of ñun ñu nekk fii sax juddooguñ ñoom ñuy try di jóg di daanu di try di move society bi ba ba ñëw jamono ji ñu nit ñu dugga ci bokka di jàppalante ñoom pour gën a yóbbu society bi jox ko moo néem pare pour ñu nit dama moom ba màgget xaanufa ko suñu rakkayee suñu jarbaati ñu continuer di ko yóbbu parce que culture boo xam ne la eh, as far as ñun ñoo concentré rek nekkul culture boo xam ne lu war a dee la. ndeysaan yàlla def na ñu ko foom ñëpp jiitu nañ ñu kenn mooy Eku Jara beneen keneen ki mooy tey la am forty days bi mu gaañoo di Saliou John ñoo xamee ko ci Ebu jon ñoom ñoo foom au delà de son depuis Basse tey. décembre bi dañoo am 54 years bañ bañ dooree benn tey waa dëgg am na jamono yoo xam ne dafa deewoon toog lu yàgg a playwood after mu ñëwaat revive ñëwaat boobu ba ba mu revive ku ñoo ooyee Silas Jones moo ko revive Silas Jones Boni Jarret banki Sénégal ak Nate Ato Hero ñoo ñu ko revive bañ ko ñu ñooñu revive moo xam ne dem nañ ba nga xam ne fi nekk nii ñooñu mag lañ am na ko ci gañu muy ato late ato hiro silas jones handover ma ko te ba mako ko we wax de ne yalla man tam maa ngi góorgóorlu dëgg la nga honti nag mom easy wut neewut waaye ñu ngi gorgolu man lama ma gisoon xontin daan def daf tan wax na daf tan anda ak jalorem <laughs> te ñoom yi ndan am ñu ko dan jëlé ci réew ci ciosan ba xam nga fi nekk ni nak ñu bari ñu ngi dem i South Africa di ut bop gayde yek boppi tere yeeg ñoom seen ak yooyu waa sere yi nag fañ ko daan jëlee man xamuma ko waaye xam naa ne fii suma bàyyi su waree génnee xontin bu dëgg foog boppa bi dafaa dem ba ba sereyam ñu feyal ko ku paas jamono jooju aéroplane bariwuloon ci saxaar dañ daan dugga kooku ñëw indi ko su ko ñuy indee ba pare mu dugg suma papa la ca biir boobu ma xamuma ko ndax lu wax naa ne xontin secret society la leneen lu ma ci wax rek maa ngi fenn su fekkoon ne sax nekkoon na ne bokkoon naa man du ma de mun a wax la nga xam ne lu parce que secret society la daa daanaka nag bokkuma ak yu demee noonu waaye fi mu nekk nii dama dama dee ree sax am na ñoo xam ne dañ dee defaral seen boppa xontin boppi xontin nekk yu demee noonu mhm. xontin daawuñ ko defaree fii bopp bi daawuñ ko defaree fii bopp bi du daan jógee bitim réew la te fi daan jógee mooy woon sereyoŋ foofu la xontin bi bopp bi daan jógee mhm. waaye léegi nag di nga gis yu kenn xamut di gis yo xamne dinañ ci def diwtiir yu du nelawak, ak diwtiir yu nelawak ak yu demee noonu mu ànd ak euh, bongo debul ak yu dem xontin du daan am loolu du daan am seen tàccu yi ngeen di tàccu yi déedéet mm. moom dañoo wéy rek di dem ak seen bilib nit ki jiitu ca kanam di fuuf gaay topp ko di wéy waaw te te xalal daaw ko toppa magi daaw ko toppa dañ laa romani rek ngeen dem ñoomi neen ci ñoomi neen waaye léegi ki ci gën a ëppale nit moo la gën a doon euh, naka la traité euh, ki ki am xontin bu bu siiw. Mhm. xontin daawul siiw. xontin fii rek ci bàyyi bunti kër gi fii rek lañ ko daan sa defee foofu rek du feneen waaw ku la wax loolu nag wax na lu mu xamut moo tax mu baax nag ñun ñëpp ñu xamante ne su ma bàyyi mi fi indi xontin te bu dundoon ba gis ni xontin mel dina yëngal boppam waaye nag dina kontaan itam ne lim fi indi. ba tey mu ngee dunda mu ngee sax mm-hmm. waaw ndaxte dañ nekk ci jamono joo xam ne jamono uh, yokk xam-xam la ak wéccante xam-xam te nothing statique mm-hmm. fi mu nekk technologie yi lañ nekk so loolu tam foog ñu bàyyi ko xel waaw waaye bu njëkk ba itam xonti ndaawuñ ko vidéo de daawuñ ko nataal itam de. waaw daawuñ ko suñ dañ ko buddee dañ ko nag even akogo bi daawuñ ko vidéo daawuñ ko nataal. ah ñu seen moo seen secret society la te ñoom ñu ko xam ak la ca biir ñoom ñu nee na ko xam mu loolu laa la wax ñoom daawuñ ko nangu ñoom daawuñ nangu kenn vidéo leen vidéo bi sax yàggule ñu yàgg ñoom yàgguñ ko nangu waaye ñoom boo leen laajee ñi nga xam ne ñu ne ñu wax ne daawuñ nangu kenn vidéo leen waaye fi mu nekk nii xam nga rek suma waay ñi ci warut a bokkaan ci bokka ñi ci bokkaan ci bokka am na ñoo xam ne sax dañoo dañoo fecca ba pare ñoo génn si ne rek yaa ngi doon gisuma fecca yi ak yu demee noonu wala nga nga xaam sa jabar xamee la ci ñëw di la nekk ne xaalis dañuy jóg leen ñu xam ne xay papi kër diw sàngam la xat moo dugga te bu njëkk ba xonte ni loolu amutoon loolu like fi mu nekk nii eh, mu ngi change waaye ñun ba léegi ñun dañ old système bi lañ njëkk di play ba léegi drums yi and everything ñun yëpp um, original lifin bi lañ dee play moo tax suñ moto bi si hontin bi mu nekk um, quality but not quantity like ñun Omo Jessa bokkuñ ci yëfi competition yi ak yooyu noonu yi yooyu ñëpp xamal nañ ñu ko ba pare itam duñ dee nangu ku ñu nataal tam si mbedd bi because culture bi um, laajtewut loolu because um, society bi dafa nekk uh, society hunting man hunting man mooy robakat hunting man deebul noonu lañ dee génne hunting man deebul deebul su deebul dafa nekk loo xam ne ñëpp xam nañ ne deebul mooy jinne jinne kenn du ko nettaal well hunting before dafa am lu ñu ooyee di passé in hunting di passé paa yi li ñu wax moo nekkoon fi bi foo waaye after dañ gis ne soo buggee dox si kanam foog nga ñëw si di new technology thing so loolu ñun Goncourt Hunting Society dañ si liggéey lu baree baree bare because di passé nanguwuñu woon benn hunting pour ñu vidéo la nii amul woon benn hunting bu nangu pour ñu film la ah xëy am ngeen si dara tuuti amul woon benn hunting bu ñu nataal la waa li ko waraloon nag di nga gis ne mooy woon xam nga mistake mun naa am paa yi liñ wax ne moo tax mooy woon li waraloon be duñ leen film duñ leen nataal mooy mistake mun naa am ñu ne kii la woon so nataal bi kii la woon boobu noonu kiñ takkoon noonu te loolu nekk secret moo taxoon ñu bañoon affaire nit yi di leen nataal wala di leen vidéo waaye li nga xam ne nag moom moo ñun from day one dañ am ay video records so waaye da ngay ñun dañ ko naan dugal YouTube onasana so suñ suñ suñ suñ nataal tamit dañ ko daan tay fu nekka so ba nga xam ne even any media bu ñëw Gambia da ngaa jël suñ vidéo ñun ba pare nga def interview pour yeneen hontin yi waa hontin ñu ngi ko pile 1820 xërëm bi bu ñëw wax xërëm waaw gars yi bàlla ma si woot bi ogun boobu mu ngi si dugg 1827 because of jamono boobu noonu xëj na islam doxutoon torop xam nga so léegi 1827 muy seven years after buñ ko playé because of secret bu nit yi di reveal xam nga di nga gis yee léegi-léegi am na suma yenn ay yenn mbokk yoo xam ne suñ demee ba jege jigéen rek. da nga gis ne dañu wik tuuti xam nga so weakness bobu dañ wax wax jigen bi be wax ko lo xamne waruñ ko ko wona wax so paa yi gis ne ah amna ben benn paa si paa yi moo romba rek jigen wax ko ci marché ne ko ah yeen seen li ak li ak li ak li lo xamne kenn waru ko wona xam ku dut so lolo tax nak ñu duggal herem bobu ci bir pour ku nekk def façade rek pour su fekke wax nga secret rek mu fayet la yet on bon su la mënalu dara sa sa dom wala sa sit wala sa sitaat bobu way da nga gis ne ñun ñun suñ bos bi ni gonsot hunting society amut rem ñun soo ci free town ñu ko dee oyé odele hunting society odele means hunting bo xam amut hirim amut any spiritual dara so ñun dañ dee play hunting bi dañ def exactly lu gaay de def suñu génné si biti waye li gars day def sen bir néegi ñom sen bir ci bir définir li ñom si ñom ño xam waaw ñun ñun bokkuñ ci lolu non ñun every year dañu wacce kamil, dañu dañu dañ dañ def ñaan dañ dañ def lu neeka pour meeg soné jama amna am ñun jama am ci ñom képp ko xamné ya nga ngi bës bobu jama amna am Gambia jama am ci adina ci lolu motax ñu day wacce kamil ti nekut nekkut um, sorry to say waaye a Christian play. Christian Play la pay ak yi ñoom ñoo fi isi hontin waaye hontin dafa soo populaire fi mu nekk nii bi nga xam ne ñu nekk ku nekk rek xale yu ndaw yi sax hontin lañ dee bugg a génne ñun temps bi ñoo nekkee xale xamuñu woon dañ daan gis hontin dañoo ragal sax ñu gisee hontin yi waaye léegi di nga gis ne dafa daal si culture bi bu njëkk ba di nga gis ne ñun makaloo yee yooyu lañ xamoon di génne gese gese yee yooyu noonu moom lañ daan génne bu njëkk ba waaye léegi di nga gis ne xale yu ndaw sax. christmas da nga gis ñu gëné hontin way hontin dafa am lu bari lim umba nak waaw because um, hontin dafa am ñu uh, ñëwé waaw ci ala bi la jógee mu ñëw si dëkk bi mu njëkk ba pay dañ dañ mëna mun hontin dafa nekk jiné la sax original hontin bi jiné la du nit yéen original jinne boobu ngeen dee takk moo ah ma ne original jinne fi mu nekk nii loolu amatul du mun a am because of léegi moto yi essence ci lampa yee yooyu noonu soo xam nga loolu du mun a léegi waaye bu dama laa woon ne bu njëkk a ba motin bi nekkutoon loo xam ne nit la si àll bi la daan jógee mu ñëw place fii waaye euh, ñun dañ ko abuse paa yi ni ko njëkkee sax dañ ko abuse bi nga xam ni mënatuñ koo jëli si àll bi pour ko fii su dañoo def imitation hunting yi fi nekk ay imitation la. développement ci am ci hunting or any cultural activity léegi nit ki nekk dafa am loo dee mun a contrôle si life ak loo mënut a contrôle ñun liñ mun a contrôle ci li <coughs> sori ci tradition bi ñoo def ñu ngi koo contrôle very well boot soo seetee léegi développement dafa am through di digital age ba nga xam ne nit mun naa taxaw ay kilomètres awii sax mun a taal la te doo ko yëkk soo wit loolu di nga am pour def reforms soo du daan allow nataal di nga mën a allow nataal soo du daan allow vidéo di nga mën a allow vidéo because whether you like it or not nit ñi dinañ la nataal dinañ la vidéo because dañ la taxaw fu sori ñu zoom la mun loo ci dara loolu <clears throat> loolu eh, development ni digital age bi la te you cannot control the development of the digital age but nonetheless eh, tradition bi nekk ci hunting ak xuutaay bi nga wax bi ci nekk ba tey mu ngi ci waaye tamit di faral di dégg nit di wax ne deebul baa ngay génn deebul baa ngay génn xale yi combo mel ni man ñu naan ñii de ay deebul ay niw ak ay yi ak yi li ñuy takka xonti lan ñu mën hmm. a wax si loolu doomi Adama Ndiaye lañ dee takka wala réel deebul ku dee waaw loolu tamit is a very very very important question because question bi dafa tax ba nga xam ne lii dafa tax ba nga xam ne yow question yi nga laajte dafa tax ba nga xam ne suñ kilifa yu bari duñ dee nangu seen doom yi parce que dañ feel ne this is spiritual thing nit lañ dee taka a human being a very responsible somebody dafa fekk ne dafa ko bugga rek onasana ñu jël ko boole ko si team boobu noonu ñi nga xam ne ñoo dee sol hontin so ñi dee sol hontin bi ñoo dee ëppa fay képp a koo xam ne yaa ngi si biir ñi sol hontin bi ñoo dañ ñoo la dañ la dañ jox uju li ñu dee uju comme yow bët yëpp si yow lañ nekka mbooleem bët si yow la nekka so loolu dañ la ko dee fay onasaana mboolem koo xam ne jël na xaalis bi mu dugal ko si ron tànkaam bi tànki caamuñam bi ah, onasaana xaalis boobu tamit bosam na so di nga gis ne at the end of the day kiñ taka noonu daf dee mun a ñun suñ 2015 suñ last anniversaire bi kiñ taka si suba bi mu ñëwee ba compter xaalisam bi am na 16000 dollars liñ ko jox ñun ak lim am si ron tànkaam bi 16000 dollars just for one four hours mm-hmm. xam nga loolu <laughs> noonu kemoon so amul dara loo xam ne eh, neexa na ko jinne o neexa na ko rab oo nit ku dee oo dara non amul dara loolu amut nit la li game la boo xam ne culture boo xam ne culture bi dafa nekk Gambian culture jógee xam nga bi ko soxalee Gambia fi amut benn benn masquerade boo xam ne Gambia am na ko amut yes Simba mu ngi jógee senegal Kumpo Kankurang mu ngi jógee eh, Casamance understand na so soo xoolee fiyaar yi gese hontin pakin géréfe yooyu yëpp mu ngi jógee Freetown soo bukki bambara mu ngi jógee Mali soo amut benn benn benn bu Gambie am so any masquerade boo gis fii dafa jógee feneen ñëw fii waaye ni ko Gambia dee defee dafa dem bi uppa doole Freetown tey Freetown ñoo isi fii Hontin de waaye léegi fii lañ dee jëlee bagage yi Hontin ah dama dee faral di déggal seen uh, woy yi yi mu nekk li nga xam ne nii Gambien si most of them if not all appreciate nañ ko yenn saa yi da gis ñeneen ni sax xale yi komba yi from A to <laughs> uh, uh, seen woy yi ban façon laaka la. Yoruba la Yoruba language la waaye am na yoo xam ne tam. broken english la aku waaye li ëpp yëpp yoruba language la waaye eh, am na comme woykat yi ñi nga xam ne ñoo dee faral di génne kaseet yi di woy from Freetown and Gambia am na ñu si bari dinañ am xëj na moo two tracks of yoruba or three tracks of yoruba then the other tracks mu nekk aku so yii mooy yi nga xam ne mooy woy yi dee am so broken english bi xëy na dina neex pour nga teel koo kacob mun ko kraam di ko woyandoor ak xëy na ki ko woy waaye yoruba bi tam eh, mayit bi xëy na nga nekk ku baax boppa ku mun a concentrate whereby di nga mun a pick up word si pour xam word bi lan la oo nga saaj ko nga gogul ko nga saaj ko nga xam ne YouTube dina la ko mun a génneel. soo bi. waaw mun naa leen seen may tuuti waaye eh, li ma bëgga rek pour eh, world bi understand or even you di journalist mooy ne dafa am yenn words yoo xam ne it could be a secret doo su ma ko waxee tam eh, du surprise ñu bëri comme exemple makaloo bi su génnee ci suba suñ nuyoo ci Yoruba nga ne ekaro ikaro mooy nuyoo suba su fekkee dañ dem ci afternoon time bi nga ne ekele ba boo goon soot woo su fekkee dañ dem dañ dem guddi nga ne ekaasoo ekaasoo ekaasoo toju ekaasoo ekaasoro lii yëpp Yoruba words lañ yoo xam ne sa makaloo su génnee suba Eh, one of the eh, sideman mën nañoo dem from Johnson to Johnson pour xëj na nit ñi nga xam ne dañ leen fa dee fekk ñu nekk hunting man ñooñu nga dem si ñoom nuyu leen boobu gon soot toju e, ekaro ekaro alaafiyaa nii yaa ngi leen a nuyu soo yii yëpp ay Yoruba language words la yoo xam ne xëj na ñu bari duñ ko xam waaye ñi nga xam ne ñu ngi dunda xontin di ko dunda di ko jëfee ñoom xam nañ. yoruba nag waaye comme soo ñëwee Banjul fii olof bi am na laaki nongo nongo yi am na laaka bu ñu laaka si olof xam nga yéen ñëpp na xam ngeen laaki nongo bi noonu la mel si yoruba so laaki nongo la boo xam ne moom lañ dee use pour hunting bi pour bu ko ñëpp understand trop mu tudda ijasa xam nga. su su su su fekkee ne yoruba la ikaro e mooy suba waaye su dee su dee ñoom si ñoo wasi xonte ne ñoo ne karo rek duñ dee wax e e boobu du dee jiitu ñoom karo rek lañ dee wax a, sana so so dinañ ne bari na ajadeta urimo urisu ajadeta urimo ye ojulo yaa ok o soo xoolee ñoom loolu su ñoo door because ñu ngee woon nit yi ne lii is administrative hunting also bi ko jël nañ permis def nañ lu nekk moo tax ñu isi wax boobu xam nga soo ko xoolee suñ soo demee si Yoruba ñoom ñoom ajade ta ajade lañ dee wax ñoom jade moo nekk comme seen président yi yooyu noonu waaye ajade ajade xam nga soo dañ ko dee taw a mel ni lu ko waaw dugal ay kuut <laughs> so moo tax moo tax laaka bi loolu la waaye xam nga du tere léegi ñi si ëppa xonti ni ëppa yëpp si olof la ñëw wéy wala si soose wala si joola wala si si si aku li ëpp a woy bi si aku la parce que xam nga yoroba bi wala ijasa bi nekkut loo xam ne dafa yomba pour euh, di si wax parce que foog nga jàng ak yàgga si bee nga xam ne dem nga si soo dip waaye suñ ko buggee téye foofu rek ne xëj na hontin bi dañ ko téye óol ni si ijasa ku waxut ijasa rek nekkut si hontin bi boobu noonu noonu noonu noonu kon hontin du egg si fii moo tax ñu def ko si woy yu bëri am nga suñ am na woy boo xam ne woy yaande koo du la sax yaande koo du seen parce que dañ génnee gaynde ñooñu biñ génnee gaynde gis ne yaande koo du woy na gaynde gaynde gaynde bugut buub yaafa lay dundee rek ñun tamit ñu ñëw gaynde gaynde yaafa lay dundee so boo génnee bu dee lekka yaafa pare da nga koo woy léegi puma yaafa lay dundee xam nga boo génnee bu dee so pour mu nekk olof sama nijaay baalal ma ba beneen yoon yooyu yëpp olof la pour mu mu neex olof yi suñ demee si soose yi ñu woy soose pour mu neex soose yi pour ñu xëcc ku neex xam nga because amul frontière waaw